alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki soppe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen baalu xaq te di leen baal xaq di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen ba tey ñoo ngi ñëwaat ak seen darsi yi ci seen seen youtube bii di talabul ilm farida ci seen darsi yi di silsilatu tawxid tey war a nekk suñu fukkeelu numéro ak juróom suñu fukkeelu numéro ak ñett ci silsila bu màgg bi nga xam ne moom mooy silsilatu tawxid xam ngeen ne biñ commencé silsila bi ba léegi li ci ëpp ñoo ngi woon ci kalimatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jotoon naa jeex ci juróom-ñaari chart yi nga xam ne moom la laa ilaha illa allah am waaye itam darsu bi ñu génn gisoon nañ ne juróom-ñaari chart yooyu moom lañ doon résumé waat tey nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy arkaanul islaam lislaam bi nga xam ne moom la jullit bi di dund xam ne mooy diine ji wér fa yàlla mooy diine ji yàlla reconnaître ba yàlla wax ne wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala min képp ku sàkku beneen diine bu dul islaam yàlla du la nangul wa huwa fi l min alxaasirin te su àllaaxira da bokk ci ñu perte wax moom yàlla ne inna diina inda allahi ji yàlla reconnaître mooy diina l islaam l'islaam boobu nag dafa am juróomi ponk yoo xam ne jullit bi war na koo xam ponk ba ci njëkk mooy shahaadati an laa ilaha illa allah mooy nga seede ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla wa anna muhammadan rasulullah nga seede itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ndawal yàlla la lu yàlla yónni ñaar yooyu nag benn ponk la shahaadat an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah benn ponk la ponk ba ca tegu moom mooy iqaam salaa nga taxawal julli ca na mu waree waajal ko balaa waxtu bi di jot lépp loo xamante ni luy sobe la nga dindi ko ci sa yaram bu waxtu bi jotee nga julli te booy julli nga jullee ca mbooloo ma soo ko manee soo amul benn ngànt beneen bi itam mooy nga fexe ba wat si julli nag boo jullee ba pare ñetteel ba ci ponki lislaam yi mooy ita izaka mooy nga joxe azaka azaka nag am na ci wàllu alal lu nit ki di am ñu koy tuddee nisaab am na itam ci wàllu jur lu nit ki di am ñu koy tuddee nisaab ngiree mu mën a génne azaka kazalika itam seefa bi itam noonu la waaye loolu teqantal bi du xaj ci vidéo waaye képp koo xamante ni am nga alal war a génne azaka da ngay xool alal ji danga koy diviser par quarante par exemple tey boo amoon quatre cent mille da nga koy diviser par quarante dix mille ba moom mooy doon azak su ko defee loolu jullit bu ci nekk war na ko bàyyi xel azaka nag tey jullit ñu bari dañ koo sàggane moo xam ay commerçant lañ moo xam luñ manti doon tey jullit ñi ñu baree bare boo leen laajee ndax mos nañoo génne azaka dañ naan la déedéet am na tey ay commerçant yu dem ba retraite waaye yàlla xam na ne boo leen laajee ndax mos nañoo génne azaka ci seen dund dañ naan la déedéet te loolu nag da ngay gis ne azaka jooju la yàlla waxoon yenent bi alayhi salaatu wassalaam xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna solataka sakanun lakum wallahu samiun alim yàlla dafa waxoon sang bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci seen alal ji azaka parce que azaka jooju mooy laabal alal ji ci kañaan ci lépp luy yàq alal moo tax tey ngay gis jékki-jékki marché yi tàkk jékki-jékki ñu dajj ay banque dajj ay bitik jël la fa nekk parce que lan seeni borom duñ génne azaka kon azaka boobu jullit war na cee bàyyi xel ponk bu ñetteel boobu ci lislaam tey jullit ñu bari dañ koo sàggane duñ génne azaka duñ joxe azaka kon azaka buñ ci naroon a taxaw darsu bi dina jël temps waaye dañ koy tënk rek ñeenteelu ponk mooy nga woor weeru koor weeru koor bu jotee nga daal di koy woor su fekkente ni amoo benn ngant ngant leen mooy nga feebar wala nga tukki comme ni ko yàlla waxee wa in kuntum marda aw ala safarin bu ngeen fekkente ni da ngeen a feebar wala ngeen tukki su boobaa fa iddatun min ayaamin uxar na ngeen compte yeneen fan yu koor gi dee ngeen fay ko juróomeelu ponk bi nag mooy euh, aj màkk su fekkente yàlla wërsëgal na la nga am alal ji am wérgu yaram gi am yóbbal boo demee waaye itam am loo bàyyi sa njaboot ñuy dund ba baa ngay ñëwee loolu itam lu ci am solo la li borom bi wax li man istataa ilayhi sabila ku ko man mooy yooyu da ciy daje danga koy man ci kàttan waaye itam man ko ci alal say bor nga fay ko say mbokk julit yi nga xam ne ñoom nga yoreel bor nga fay leen seen bor sa njaboot nga bàyyi leen dund ba baa ngay ñëwee waaye itam boo demee ba màkka la nga fay dundee nekk loo xamante ni luy mat la doo yóbbu loo xamante ni daal day manqué su ko defee juróom yi moom mooy ponk lislaam mooy taxawal wax ginnaaw bi nga waxee laa ilaha illallah muhammadu rasulullah seede ko taxawal julli natt azaka woor weeru koor aj màkka suñu delloo ci xadiisu abdullah ibnu umar bi wax ne yenent bi alayhi salatu salaam nee tabax nañ lislaam ci juróom juróomi ponk yi moom la indi jullit bu ci nekk nag war koo xam taxaw ci bu baax rawatina li nga xamante ni moom mooy azaka rawatina li nga xamante ni moom mooy azaka nañuy génne azaka képp koo xamante ni am nga alal ci lu mat nisaab na nga génne azaka kon loolu moom mooy ponki lislaam yi nga xamante ni moom mooy ponki lislaam yi juróom yi haza wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain